am saaf quoi ñu arrière waay bi nga ñëwee ba léegi bu na bu dem damay wax ndax joxuñu ma micro non waxuñu la lool mais fu mu baax damay wax nag parce que la wax ak damay jàmm dama waxoon ak yaa ngi maa ngi kër Diop ba nga ñëwee ba léegi lépp ba ci bopp ba la bopp ba la bopp un million nga fay def saakale hôpital dixième cent millions mille étudiants nga wutal leen bourse waaye doo Pape Pape del solan sekina Pape Pape man ko way neex na lool lépp neex na mais nañ wax liñ fi def micro bi ci ginnaaw du mën ta ñëw di peuple par le peuple et pour le peuple damay wax c'est bon c'est bon c'est bon seen loxo seen loxo seen loxo seen loxo bàyyi imam mu def ñaan liggéey bi barkeel waaw il faut rendre César qui est pas jël César 557 mètres ci nekk waaye yow doo nga sam programme. accompagné les enfants de Sénégal accompagné Babacar Diop bi nga nee ba léegi kees kenn meru hôpital régional yaa fay def 100 millions hôpital dixième 100 millions ñëpp kenn lañu jël mbir yi di jaar wutal leen lañ ko wax kay dégg ko. Merci déjà, merci de votre présence Merci d'avoir appuyé à l'éducation de la richesse. Vive le Sénégal. Yes, bëgg nga def Babacar Diop, yaa baax sa Diop. lalas na bàyyi waxoon nga def bu sol bu mu weex nga yab fu muy toog Babacar Diop jërëjëf merci beaucoup ñëpp ñëpp ñëw nañ fii école ñëpp ñëw nañ fii quartier yi chef religieux ñëpp ñëw nañ ñëpp jaar nañ ñu ngi rafetlu seen teewaay yi dañuy commencé rek gis nañu ne wala ñoo commencé wala ñoo moo ñuy jëriñ laaj wala nga jox ma dara parce que loolu man dong lay jëriñ amuloo benn njëriñ saa bu ma ñëwee ci sa bureau benn bis di fa wax lenn loo xam la may wax sama njëriñ bopp la man nii bu fekkee am nga fula bee ba nga lànk te loolu bul ko jox su ma ñëwee sa bureau di loo xam ne sama njëriñal bopp la bul ma fas naa yéene du ma ñëw sa bureau mukk te laaj lenn loo xam sama njëriñal bopp la ma ko ma ko def fas ma yéene loolu ndax su ma ko ñëwee tooñ naa ndax yow la nga may jox gëm naa ne loo kon wóor bu ma jubee lu ma laaj loo moomul li nga lañ la sant mooy nga liggéeyal mais dëkk bi liggéey bu jub kenn ku jaar ci dëkk bi xam ne liggéey bi dëkk bi liggéey nañ ko loolu lañu soxla waaye soxlawuñu loo jox suñu boos soxlawuñu lenn loo xam loo jox jox pour ko njëriñ lii laa la waxoon te loolu ba léegi ku may wax ku la ci man loolu laa lay wax soxlawu ci yéen lenn liggéeyal réew mi doom ma laa soxla soxlawu benn intérêt ci yéen ñu jàng Faatiha Faalax ak naa salaatu ala nabi ñaan yàlla yàlla jàpp jàppal leen ci rajo salaatu subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin moo ñu dalal fii ci place de France ñu yor nag kàddu goo xam ne gii mi ngi jógee ci suñu wayjur suñu kilifa Papa Souleymane Kanté amin yàlla fi yàgg te muy président wu délégué de quartier yi nekk Thiès di président wu délégué de quartier yi nekk ci région bi di papa di wayjur ci ñun ñii di wax ak ñi mu waaye di papa di maam ci ki nga xam ne kii mooy monsieur le maire de la ville docteur Babacar Diop mu di doomam di xaritam te du ñu umpoo ci dara ndajem tey bii lettre spéciale la ko yónnee moom monsieur le maire invité ko pour mu teew ci ndaje nii teewul nag waaye njabootam yëpp teew nañu soixante délégués de quartier Thiès kenn desul waa Thiès est ñu ngi waa Thiès ouest ñu ngi waa Thiès nord ñu ngi kon mën nañu wax ne dëkk bi yëpp teew na délégué de quartier mooy représentant population bi ci wetu autorité yi monsieur le maire sa papa nee na ñu ngi lay di nuyu monsieur le préfet Diadji Guèye mi représenté préfet départemental di nuyu conseil municipal bi yëpp Pape Souleymane Kanté nee na mi ngi nuyu kilifa diine yi mu ràññee ci ay doomam yoo xam ne yi ñu ngi ràññee ci dëkk bi dañ bañ kon dina wax ne Ibrahima Dia mu ngi nuyu mu ngi koy dina wax ne Arona Ba mu ngi koy dina ziar dina wax ne ñu ngi nuyu professeur Ibrahima Faye ñooñu bu tegee loxo nuyoo bi ci seen loxo ñu jot fi ko kilifa diine ñëpp di beral imam bi nga xam def ñaam bi léegi ba nuyu nag le conseil municipal nga xam ne ñoom ñoo ànd ak maire di def liggéey bu rafet ñu reñ ñu ràññee fii ci Thiès monsieur le maire docteur bi nga ñëwee ak léegi ci ñaari at day toll waaye gis nañu ne dëkk bi mu ngi changé ci wàllu xar-xanam dëkk bi mi ngi changé ci wàllu melokaay ndax loolu lu ko waral liggéey bi nga engagé moo ko waral monsieur le maire ku la xam xam ni Thiès rek moo la ñor. Cees nag bu la ñoree population yi ñoo la ñor population yi nag ñu ñor la suñu la ñoree nga ñor leen kon monsieur le sa papa Souleymane Kanté nee na moom njabootam délégué de quartier fas nañu yéene comme yow li la ñor mooy liggéey dëkk bi ñu ànd ko ak yow muy guddi muy bëccëg monsieur le waa Thiès kontaan nañ ci yow waa Thiès bi nga fi ñëwee ak léegi li nga fi liggéey malgré faible moyen yi nga am dafa ràññeeku ci dëkk bi dafa dem mandarga moo xam ne ñëpp gis nañ seen bopp tàggee boo gis na dafa am jàppal diw tey place de France moo xewle mu di li tubaab bi wax place mythique loolu loo xam ne ci jamonoy tubaab bi la fi nekkoon maire bu nekk jaar na ci diggante Senghor ak yow mii nam meloon ci jamonoy Senghor nit ñaa ngi koy fàttaliku place bu verte bu rafet bu féex bu neex a doxantoo neex a waxtaanee changé yaram bi changé gesoo yi am leen naqar yi am leen métti mënuñu ko wax yow bi nga ñëwee nga def lecture daal di seetlu gis ne lii lu ñu war a soppi la nga dégg te soppi ko defaloo ko sa bopp Cees nga ko defal kon monsieur le maire Cees gërëm nañ la sant nañ la ñu lay ñaanal yàlla yàlla yàlla yàggal sa taxawaay monsieur le maire yàlla yàlla dëgëral sa taxawaay monsieur le maire projet yi nga nar ci Cees te muy réhabilité Cees yépp waxuma plateau français Thiès gépp la bëgg a réaliser parce que Thiès li mu nam bëri na Thiès nam na feu rouge ci angle yi nam na point de circulation ci angle yi Thiès nam na grande surface plein na nam na ko da ngay léegi grande surface yi Thiès yi mën a gis Thiès waaye gis seen bopp ci loolu monsieur le maire bu ñu koy lim du jeex waaye yow xam nañu sa xel bi ci yow yàlla yàlla na leen yéen sa sago yéen ñëpp monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di leen sant jërëjëf merci beaucoup. mais Babacar Diop bu wootee. waaw. Thiès waa yëpp war nañoo jóg. ay ay dana. wuy ji ko. waaw dëgg la lu wér. mais woote bi nag. ah. woote jàmm ak salaam la. woote lan la. macha allah. macha allah nee na. Babacar Diop. Babacar Diop. daa fas yéene. daa fas yéene. place de France di xam ne. place de France di xam. moom la jeexoo yëpp di tiitaroo. moom la ñu am. ndax waaw. da ngay xool. Ndakaaru mhm. boo fa demee ba yegg place de l'indépendance. namatuma namatuma ko fii laa. jii ngeen mel ni bari. da ngay dem ba ñëwaan Ndakaaru. ñëwatuñ ñun jeexuwaay yi. waaw. bu 4 avril jotee. waaw. macha ba gaa yi diifule ba nu yeggal ñun ñëpp ah. ci place de France lan daan daje di xam 31 décembre ñu nekk fi di taal nga xam ne mooy ñeexalum at mi ceesoo uh-huh. yëpp ay dajaloo ñu place de France ren ñëpp a fotow ren ñëpp a fotow kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk Cees notable yi yi ñoom ñëpp uh-huh. place de France la ñuy grand place di fa nas ak a nokkee lu jëmee kanam kees dëgg la waaye kon place de France jar naa toppatoo de jar naa toppatoo ma ne ah man moom damaa waaw damaa dama tukki ji ñibbi si waaw ci guddi gi bi ma ñëwee ci mairie bi waaw damaa defoon maa ngi Hong Kong wala wala wala <laughs> baba baba eh. Babacar lampi ñaata Babacar Babacar yi a Hong Kong laa ne ma daal di ah, xool ah. ñëpp gis mairie bi hôtel de ville bële mairie laa ne. waaw keroog solo lu ay Babacar booba. waaye nit ne ay gars yi Babacar. Babacar jërëjëf. waaw Babacar jërëjëf. Alaaji Njambe. waaw li ma gën a neex ci moom. Ah, sécurité bi mu indi. waaw tey jii. eh eh. eh, eh. eh, eh taay eh taay. taawal am nga problème sérieux tey. eh taawal yi taawal yi. taawal. eh eh yow lii mooy lan lii mooy lan. fii fii ñu ngi koy bëgg a defal ngay ngay dee. ay dëmm ay dëmm lañu. ay dëmm lañu. mais fii ba seen kër nekk buur la lu ma leen def fii yéen ko. yow lii yoon. wala ma laala te ma def leen lu ko ah. ne la la kii rey ñu ko muy wax. non. yow looy béy béy béy looy ñëw moo gannaaw. boo def la yow. lu xew fii eh père la ville. man maire la. tey de la premier magistrat. waaw. moo woote tey place ah kii français la. loolu. eh ah de France bi la ñu war a tàmbali liggéey yi defar ko ba mu mel ni. macha allah ku koy taal. maanaam. Eh, kii déggewul foofu. baal ma woon la. baal ma woon la. ndax monsieur le daa jóg pour defar ko bu leen daa xel ne tey monsieur le maire ah tey daa ngi lay dégg am ko ba ko ba boobu xam nga ni monsieur le maire daa woote ngir defar Thiès waa kay kii nag daa ñëw di sànde Thiès maire yi maire dëkk bi dëkk bi la daal moo fi sànni lii lu tax civilisé wu ma leen eh da ngay di fay sangu puudaru sañ sëñ bi kadi lee woo de ka foyi kɛ n'a ye. u tɛ aw ka kɛlɛ na y'a mɛn. a ye fara na a ye ta ka bɔ yen. pardon a sango wala. Oui, bon. Ouais. Attendez, va, n'entame, n'entame, n'entame. Ouais. Qu'est-ce que mbir bi lii du ko régler. Gis nga Babacar Diop daa sonn ci Thiès. Dëgg la. Yéen kenn ku ci nekk yéen ngay tëdd nelaw moom ma ngay kër ci kër di xool yi plan xool ni dëkk bi rafetee mu def ko. Def fi ay lamp. Ku leen ñëpp fotowu. Kenn nga jël waaye kañ la agressé. xoolal kañ la ko gëj a dégg. ah. waaye yow. tey di nga gis ni sol si la yi nii yëpp peer la la ñuy def fi. waaw ah, waaw. ñooñu. ah léegi de dama ñëw ci gaare. waaw waaw ndaw fi ne ma eh. tonton ma ne ko mu ne jëmal ne le. fële nga war a gaar. mais ab dëkk day am or. ah loolu la ko baax a gaar. li ma gën a neex.

waaw waaw wuy ma lakk yi leer na naaj mais del firi sa kanam bi booy wax teer li ngay wax daa neex. damaa ñaaw nii laa ah. mel tey. man eh, damaa ko. Babacar Diop wax nga jënd ay kanam yu bëri tamit. kii déy na ma kii déy na ma néew na dafa ruus. jënd ay kanam yu bëri. ginnaaw ruus nag déglu leen. ana ana. Eh, far naa ko mi ngi defal sa saak. ana beneen bi. Eh, fekkoon ku fi saw ñun la tonnil nga def sa saak. ñu ëmb ñun la tonnil. ñu am ci ñett. ba pare amande la. ngay fay lu bari. lii xam nga woo ko mais dama boole. daal la mbir mi. waaw léegi kaalem dem nag kaalem dem ci Babacar. léegi nag buñ fa demee na ngeen réglé. te xam ni réew mi ni mu ko def matut a njëkk fii di laaj lan la Babacar def fii. yaa ngi dégg ñi doon taxaw fii di dof dof lu di lekk suñu xaalis yëpp Babacar rek la na ko teg taawaati gi barke alxuraan xanaa xamoon li bees yi xew nii ne sampoon ñëpp bañ a fay fay nañ waaye Babacar jërëjëf waay waay jërëjëf waay Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Monsieur le maire, honorable Monsieur le préfet, honorable chers invités et délégations, très chère population de Thiès, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. Je me ingénieur intervenant dans l'entreprise entre, entreprise Borom Garanti, qui, comme vous le savez tous, est l'entreprise qui a été choisie pour la réalisation de ce grand projet, qui est le projet d'aménagement du jardin public de la place de France à Thiès. Tout d'abord, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour le fait de nous avoir accordé votre confiance pour la réalisation de, cette grande œuvre d'art. Et nous savons tous que ce projet tient une place capitale dans la ville de Thiès. Monsieur Euh, l'entreprise Brom Garantie euh, voudrait vous ainsi que toute la population thiessoise, qu'elle fera tout ce qui est dans son possible pour mettre en œuvre donc ce projet dans les meilleurs délais tout en respectant les normes mais aussi dans le respect de l'environnement car l'entreprise Borom dispose suffisamment d'ingénieurs et de techniciens assez qualifiés pour à ah bien ce projet en œuvre. Monsieur le maire, nous saluons aussi votre esprit de vision, mais aussi votre sens du travail et de responsabilité. Car cette très bonne initiative qui est la réalisation donc, du jardin public de la place de France va remettre donc, la plus grande ville du Sénégal à sa place qui lui revient de droit. exemple ailleurs ne pas trop monopoliser la parole l'entreprise Borom Garanti réitère vous réitère à tous mes remerciements et vous remercie pour votre aimable attention merci. Ah, donc c'était waaw xale bi